xarala yu bees yi comme chaque mardi euh, bu ñu tuddee waxtaan nag euh, dañuy def euh, télétravail ak Mérie Bey on la retrouve chez elle en visio télétravail évidemment Ndioufa wax nga ko sànq ci nuyoo bi nii am na application mhm. boo ñuy présenté boo xamante ni mu ngi tudd Cathy 360. effectivement Pape Cheikh application bi ma leen di présenté mi ngi application Cathy ah. 360. léegi trois personnes kati en fait c'est un mot boo xamante ne nii c'est un mot swahili qui veut dire central et 360 fait référence au degré 360 degrés donc benn application de crowdfunding la wala euh, application bi nga xamante ne ñii di faral di def téléthon wala ñi nga xamante ne dañuy faral di def social hmm. nekk ay donateur bëgg di joxe euh, ñoom ñoom ñoom lañ ko euh, jagleel donc application bi nu muy marché c'est très simple mhm. da nga koy télécharger installer ko soo ko installer da ngay def sa tour renseigner sa adresse mail mhm. ak sa numéro de téléphone am na benn code bi ñu lay yónnee boo xamante ne moom moo lay permettre mhm. nga am accès si plateforme bi pour mën a xam yan don Euh, yan projet ngay def don am na ay différents projets moo xam projet pouponnière moo xam projet tabax jàkk et léegi yow boo demee ba choisir projet bi nga bëgg tànn am na euh, dañ lay jox choix soit nga def sa donation nga bind sa tur ñëpp a gis ne que ne yow euh, joxe nga nangam ci xaalis wala nga def donateur inconnu nga xamante ne da def rek ngir yàlla tax buggo sa tur feeñ da ngay am benn coche euh, benn euh, case booy coché boo xamante ne nii kenn du xam ndax yaa doone euh, yow yaa joxe wala yow yaa joxewul mais Pape li gën a li gën a neex ci application bi moo mooy que ne chaque fois ñuy faral di def téléthon wala ñuy faral di defaral ay nit ay ay ay donation ñu bëri dañuy laajte fan la xaalis borom jot na ko et tout mais avec l'application yow mi nga xamante ne yaay donateur muy man muy keneen ak keneen da xam exactement fan la somme bi toll à la minute près bi nga xamante ne yow yónnee nga sa donation te aussi lépp li nga xamante ne nii euh, xaalis bi defee nañ ko dañ koy wane ci application bi mu leer nañ donc xaalis boobu ñuy utiliser wala di joxe ak euh, di offrir lépp dafa xam da yow mi di donateur da ngay xam fu mu dugg ak fu muy génn. bu dee tamit da nekk koo xamante ne euh, da nga bëgg a lancer benn campagne de téléthon avec l'application c'est possible mën nga dugg ci application bi lancer sa campagne renseigner li nga xamante ne mooy champs yi wax li nga bëgg ak lan mooy sa objectif à travers euh, euh, campagne boobu ngay lancé su ko defee donateurs yi nga xamante ne ñoo nekk ci application bi ñoom tamit dinañu mën a ñëw def seen donation pap donc Kati 360 bi ñuy dégg depuis sànq. Mm. loolu la indi loon moom tamit. si wàllum technologie ñëw dimbale ñi nga xamante ne ñoom ñooy def lii di téléthon ak li nga xamante ne ñoom ñooy def lii di social Pape. ah ben c'est très intéressant application la euh, bu dëkk fan euh, ñan ñoo ko créé c'est des sénégalais c'est pas des sénégalais. c'est des sénégalais c'est deux sénégalais kenn ki Xaadim Fall la tudd ay sénégalais ñoo ko def mais euh, xam naa moo Swahili bi moo la si jaaxal mm. en fait dañ ko jox kat yi 360 pour jox ko une dimension panafricaine. Ah. pour wax ne que nu du Sénégal kese am na ay projets yu nekk Bénin am na ay projet yu nekk euh, euh, Sud Afrique yooyu yëpp. pour pour c'est pour tout le monde en fait ce n'est pas juste pour le Sénégal mais di ràññee tamit que ne ay doomu sénégalais ñoo ko defar ñaari doomu sénégalais yu góor ñoom ñoo ko defar donc euh, suñu fierté encore une fois c'est vrai que développeurs sénégalais yi ils ont beaucoup de talent effectivement kenn ki mi ngi tudd Khadim Fall euh, c'est un ingénieur informatique et ah. diplômé euh, à l'Institut technologie de Tokyo keneen ki mi ngi tudd Fallou Gueye de NEOMA Business School mm. à Rouen mais dañu jël seen savoir faire def ko au service euh, de de seen dëkk ak lii di Afrique. Mhm. voilà donc merci en tout cas euh, Diouf euh, kontaan nañu merci pour cette application bi nga ñu présenter on encourage ces jeunes et puis dama la mere ma waxaat la ko waroon nga maa invité ci anniversaire bi. <laughs> duma la delloowaat dama la mere bi <laughs> parce que damay bañ nga seey di suukar. <laughs> waaye mais mais mais mais est-ce que tu sais que est-ce est-ce ton papa. c'était c'était c'était c'était le papa de mon grand frère bu ma bokkal ndey ak baay. waaw waaw wax na ma ko. waxoon na ma ko xamoon naa ko. par contre li ma xamul woon mooy que ne sa papa ak sama papa nekkatee ami d'enfance lañ parce que si dëj bi. sa papa moom sama papa. ah waxuma ko de. maa ko maa moo ma représenté <laughs> heureusement que tu en rigoles c'est bien c'est bien. on peut peut que faire ça dañuy ah nangu dogal rek parce que ay jaam lañ. yàlla bu soxla ñëppay jël metti na. mais yàlla bu soxla voilà. on on ne fait que vivre avec et puis on continue de vivre tout en pensant à ceux qui sont plus là. c'est ça donc loolu rek ñu mën a def. mënul ñàkk mhm. quoi et puis suñu suñu ñoom dem dama bëgg fa ñu nekk bu ñu dee xool ñuy reetaan quoi sabab naan bilaay Merry Beye moo neex rek xool ko rek mu ngi may reetaanloo genre quoi il faut vivre quoi. <laughs> oui oui pourquoi pas te comme moom dafa bëggoon reetaan ni man. xam naa kon instant bi na ñaan yàlla rek ne euh, fi mu nekk moo ko gënal fu fi mu jóge. amiin amiin donc waaw. Euh, amiin loolu la daal waaw jërëjëf euh, Diallo Diéry. waaw kon euh, rendez-vous. <laughs> rendez-vous et puis mardi prochain d'accord pour beneen yee élément yeewu leen rek. xanaa soo ma rek ma def un petit coucou à maman Nicole Sall depuis Paris et di remercier aussi Nicole Design aka Marème moom mi génn si taille basse après dinaa leen defal photo yi. jeex photo wul rek yow ci sa Facebook ak sa Instagram merci Merry Beye ñu ngi lay gërëm bu baax. pour cette présentation de mu ngi tudd euh, Katik j'allais dire Katik création <laughs> création moom a ñëwal grand boobu euh, application bi tudd kati création kati 360 la tudd. Mairie Bay présenté donc une application euh, réalisée donc par des développeurs euh, sénégalais.